man dégg naa sew du jaam ni borom waaye jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan 24actu point com ñu daal di dellusiwaat actu people yi daal koy doore fi nga xam si ne nag moo di Dakar Show daal di fesal na Almadies foofa nag drogue ba ak alcool bi ñuy jaay seen bopp yëpp di jàmbaajoo ci biir li ko daal di nag ci ay photo yoo xam si ne ak jigéen yuy sol yu gàtt yor seen i biteeli sàngara di ko naan ñu daal di dem ci bës di Eva mi bokk ci Pod et Marichou gannaaw nag bi mu sëyee ak ki nga xam si daal di koy gis nag ci mbégte mu yaatu mu daal di ànd ak ki nga xam se ne moo di ji di beneen cheikh bi moom nag ginnaaw bi mu sëyee ak ki nga xam moo di pii nag ñu daal di koy gis nag Dakar Buzz nag moom di ñu xamle ne nag benn góor boo xam ne am na juróom-ñaar fukki at ak ñett moom lañ jàpp doon ko toppee nag mbirum benn xale bu am fukki at ak ñett góor googu nag amoon ñetti jabar mbir ya mi ngi xewee ca Louga góor googu nag bi mu taxawee ci kanamu yoon daal dinay weddi loolee lépp boom seet waaye nag doon na xamle ne nag doon na ko làmbaar addoom yooyee nag mu mel ne attekat yi nag nanguwuñ ko ba tax na jàllale nañ ko ca kaso ba. tout a changé tout a basculé. daal di fésal nag photo Pape Cheikh Diallo ak ki nga xam si ne moo di Kebs Thiam ñu lëngoo di jooy ki nga xam si ne moo di Mariane Silva Diop nekkoon ci TFM nag génn àdduna ay kàddu yu sedd nag di bàyyeekoo fu ne moom Kebs Thiam nag di xamle na woon ku baax laata am diine ñu di ko ñaanal suñu borom yërëm. lépp lu doyoon diina wow lu dund diina dee. ñu daal di koy daaneele at fi nga xam ne moo di Dakar midi fii ci Sénégal am na lu toll ci ñeenti millions ci ay xale jigéen yoo xam ne ay célibataire lañ amagun borom kër gannaaw site internet bi li mu jëlee journal bi nga xam ne moo di direct info di xam leen nag moom ñu bëri amagun jëkkër xam leen ne nag ngir yooyu am na lu ko waral leen leen indi loon daal leen di jox dig daje ci beneen yoon.